bu góor yàlla na yàlla yërëm ko moo ko way dawlu yëpp euh, discussion principale bu mu daan wax da ka daan wax ni fen baaxul góor du fen nit du fen fen baaxul. ma ne leen fen mooy ñaa moo mooy jur ñaawteef yëpp ëmb la lépp a ngi ci biir. fen baaxul et ça on a grandi avec. Mhm. après beneen bi nit day doylu. waaw ah, surtout. nit day doylu hmm? di muñ. Parce que notre papa il était professeur de lettres, il était syndicaliste, il était hyper engagé et généreux, directeur et tout, mais kenn ko yëpp. Mm-hmm. donc euh, comme comme nit yëpp d'ailleurs. parce que kenn bëggul ko ko yëpp. Mm-hmm. je pense que loolu moo ñuy gunge. Mm-hmm. sunu jur bu góor su sunu jur bu jigéen am lu bëri loo xam ne dañu kaa jommaloo. voilà d'accord alors Pa Assane di dem di dem nga dem. keneen est la euh, la relation entre Pa assan ak li nga xam mooy milieu culturel parce que ñu bari xam nañu ne am na concept d'émission yu bari ñu gis ci télé ba léegi muy daw ñu bari xamuñu ne yow yaa nekk derrière mun naa jël exemple li nga xam ne mooy euh, par exemple 24 heures ak ak li nga xam ne mooy am ci koor gi fële ci tey fa muy quartier général pas mal d'émissions yoo xamante ne concept bi ak good morning ak nga xam ne bokk naa ñoo xamante ne ils étaient des inconditionnels daanu ma ko woon tardé alors Pa le milieu culturelle. Comment ça s'est passé pour, le, pour Niwad aussi, personne, de manière particulière, avec le groupe GFM ouais, Disons, euh, amna lo xamni nit ci aduna da nga dox rek yalla tek la ci mhm. moi je me rappelle euh, à partir du lycée Blaise Diagne euh dañ dan football ba pare interclasse wala lenen je, je, je sors de cours su ma amee benn une heure wala une heure trente par exemple j'ai cours à 10 heures je finis à dix heures j'ai pas cours wala professeur bi ñëwul entre 10 heures midi je fonce en centre-ville je prends le bus je suis en centre-ville en centre-ville qu'est-ce que je fais j'ai des fréquentations et ces fréquentations c'était quoi c'était par exemple le ministère de l'environnement au temps en 94 c'était dirigé par le professeur Abdoulaye Bathily je me permettais d'y aller et am na ci benn anecdote boo xam ne qui touche Walfadjri en 94 dama doon boobu temps je dessinais aussi en même temps. parce que mhm. dessin ça fait partie de mes activités yu yu ma yu ma def su ma amee jot. Uh-huh. et qu'est-ce qui se passait euh, dama doon dem ministère de l'environnement di dem di leen yóbbul des croquis que je faisais. Mhm. pour benn projet de bande dessinée boo xam ni Odia mii Omar Diakité di kilifa bu mag. tonton Odia ñu ngi ko nuyu. mu ngoog doon na ko gérer ak ñoom et y justement le papa feu le papa de Salma bi. Salma Ibrahima Fall Salma Ibrahima Fall bi mhm. son papa El Hadj Ibrahima Fall mhm. nekkoon suñu kilifa foofu dama daan dem di ko fa fekki en tant qu'élève il me recevait super bien ah, yàlla yërëm ko yàlla ki ah def xaritu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci àljana gën a kawe te moom ma bàyyi ñoo bokk tuur Ibrahima mhm. donc dama ko fa daan fekk en tant qu'élève et il était séduit par le fait que un petit garçon qui débarque qui dit que doy je veux proposer des œuvres euh, yu ma def xool ko il a trouvé ça intéressant. Mhm. mu commencé di di ma intégrer en me donnant des rendez-vous viens je te mets en rapport avec genre et cela m'a servi après loolu dama ko daan def boo ñëwee proposer daal di dem. Mhm. tout comme je finissais ça et je proposais ces mêmes œuvres à à un grand que j'avais qui était à Rufisque euh, monsieur Diop mu jumul euh, qui qui qui était imprimeur. Mm -hmm. sérigraphe qui reprenait mes œuvres et qui les en saison, entre Casamance, dans la zone touristique. Mm -hmm. Et c'était mes œuvres. Mais moi, j'avais le plaisir que am na ku jënd sama œuvre. Euh, à des prix yoo xam ne pour un élève ci jamono boobu. Mhm. nga nekk élève ba pare di yor monnaie. Mhm. Euh, c'était tentant c'est-à-dire que nga nekk élève euh, au lycée di jàngi première seconde première yore genre cinq mille francs par jour. ci jamono jooju. <laughs> tu content. parce que tu as vendu une ou deux œuvres. et ça a beaucoup servi ci suñu sens entrepreneurial on a toujours eu envie de faire quelque chose de de proposer di jóg di alors ça on l'a vécu à partir de cette année 94 je fréquentais et le ministère de l'environnement je fréquentais le studio 2000 de El Hadj Ndiaye avec les Michel je fréquentais Michael Souma et la RTS à Dakar FM. à partir de 94 ma am accès di dem Dakar FM di seeti Michael alors lui aussi il, il nous a apprécié euh, et Michael Dieu a fait que moonu njëkk a jox micro ñu wax ci rajo. en 94. 94 di wàcc di yéeg et à partir de 95 où on a eu notre baccalauréat donc 95 96 97 ba 99 nag parce que entre temps on n'avait pas le temps c'est les études mais 99. la ñu tàmbali nag carrément dans les médias 99 à Dakar FM où j'étais producteur extérieur c'était au temps de Gila Cham et il y avait sunu kilifa bi euh, Chérif Cham qui était le directeur commercial et il y avait Francis Cheikhna Ahmadou Ba l'ancien grand animateur de la radio chaîne Inter qui dirigeait avec Michael Souma et à partir de 2000 j'étais intégré au niveau de la RTS comme producteur à la à Dakar FM foofu la ñu commencé nag nekk ci rajo bi et je me rappelle j'ai de bons souvenirs de Niatamba ak Pape Cheikh qui venaient assister à nos productions ñoom dañ daan ñëw toog setaan euh, kontaan ci lool Pape Cheikh daan jóge ci Marème sàmba mhm. bu fa demee ci à ses débuts jóge fa ñëw foofu. la télé est à mhm. bu ñëwee toog et c'est quand moi. Mhm. en 2000. j'ai quitté encore Dakar FM. pour ma retrouver à Comset, mhm. au journal populaire où mhm. j'écrivais. ci Olof Paasan. waaw bi ma bi ma jógee bi ma jógee Dakar FM ma dem Comset maintenant dama doon def Dakar FM Comset à un moment donné il fallait choisir ma tànn Comset Comset c'était c'était il y a eu aussi l'influence de Youssou pourquoi. parce que sa rapport ak Youssou Ndour comment ça s'est passé da nekkoon Dakar FM. oui euh, foog ngeen xamante wala c'est en dehors si sa liggéey sa rapport ak Youssou Ndour parce que dañoo gisoon ni euh, Youssou Ndour si staff bi dañ la fa doon gis. <laughs> waaw disons disons que euh, Michael Souma moo njëkk dox sama diggante ak Youssou en 94 Youssou dafa am disque d'or je me rappelle ñun ñu jógee lycée Blaise Diagne. ne dañuy dem teeru jikko Medina et on était avec des amis et j'avais un autre pote qui vit en Espagne actuellement on l'appelait Pexe dañu dëkkoon Rufisque ensemble Pexe daa nekkoon ko xam ni yàlla dëkk mayoon mu mun ñaw mun defar ay casquette mun defar lu ne ma ne ko booy kaay ñu defaral Youssou ay affaire ñu yóbbul ko donc moi j'ai toujours été un grand admirateur de Youssou mm -hmm. et 94 ñu dem ne dañuy teeru ji Youssou Medina je me rappelle Badou Diakhaté nu ngi ko defe naa mu ngi bi mbay Dièye Faye di wax ak euh, yeneen kilifa recevoir ñu et ils étaient de nous voir. Mhm. déjà ça a été le premier link ak Youssou. après beneen bi à partir de de de quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit Michael dox pour que ma gis yusu parce que je devais faire mon mémoire de leadership et j'avais opté sur son modèle donc quatre vingt dix nag la Youssou def loo xam ni. Euh, moo moo nekk genre quelque chose qui m'a presque ouvert les portes de l'audiovisuel dans dans le vrai sens du terme moo di ne moo ma njëkk a permettre ma am accès biir SAPROM mu boole ma bureau ak ku na wax Lamine si Lamine bii nekk à de voyage maa kaa nuyu moom tam à partir de cet instant euh, un jeune garçon qui est fan de quelqu'un admirateur admiratif ci di gis. Euh, doon gis ci télé yi ñu doon gis télé yi wala gis benn Habib Faye Habib yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan euh, grand yi dañ daan ñëw foofu après midi bi. Mhm. Euh, man dama daan génn cours. institut supérieur des sciences de mhm. et de la communication. Mhm. bi nga xam ne xam nga ko di ISIC. bu Ablatif Coulibaly. El Hadj Amidou Kassé. Babacar Ndiaye Mankanu. Arène Niakande l' actuelle directrice Mankanu itam dama daan génn cours dugg sa donc élèves étudiants les normalement da ngay nekk voilà mais sama servi. Mhm. parce que dañuy génn cours. dugg liggéey voilà exactement. Mhm. dugg foofu préparé wu. Youssou nag ci jamono boobu dénk ma ku noo wax Mara Dieng. Mara Dieng Mara benn ne ko mhm. Dieng. booy bi il est très intéressant bàyyi ko xel voilà lu mu soxla na ngeen ci taxaw. et c' était bien. lan moo nekkoon sa rôle au sein de Jodoli. boobu bi nga toog Jodoli a à partir déjà à partir de sa prom. j'étais je déjà SAPCOM Adama saw je me rappelle bi ñuy préparé projet COM7 97 boobu juddoogul il m'a donné tous les détails et m'en expliqué. Adama Sow association grave. Adama saw a été le premier directeur de 7 Adama Sow moom moom TFM bii nii taxaw nii tey. Mm. loxo Adama saw ngi ci moins zéro ba plus l'infini Adama Sow mel Adama Sow ku mat a fonk ku mat a respecté ku nit ñi naw ku nit ñi respecté aussi. nit ku baax ku généreux ci xam-xamam nit ku baax généreux nekk euh, kilifa bu mag. Mhm. nekk xaritu Youssou. wala rem nekk euh, koo xam ne ñun ñun on a grandi. Mhm. ci seen kanam ci tàmbali dans le monde audiovisuel. Adama mhm. Sow Michael Souma euh, Mamadou Baal. Boubacar Ba Maktar Silla Nunkanu ak yeneen kilifa yi. alors quand tu vois toutes ces personnes di jàng si ñoom di jël. daa am dara Abdou laa Coulibaly am Hadji Amidou Kassé mhm. euh, sama xel mu ngi dem ci ndeysaan euh, Max Soy bi ne woon su FM te gaañu la belle voix de Max publicitaire ak ku noo wax euh, di Seck ak ñeneen ñoo xam ni wax dëgg yàlla dimbali na ñu dimbali bi moo la lan nu leen di fréquenter nuy woon yoon et yoon boobu au la de l'éducation qu'on a bokk na ci li ñu permettre ñu am une certaine instruction au-delà de l'école du terrain. dañoo yéewoon ci seen xam-xam. ci seen xam-xam. mais pourvu que nag. pour pourvu que nag nga am tegginu kersay wor ma xam ne ay kilifa la ñu. waaw jox leen ko. surtout parce que prétention. Mhm. weesuwul jàkkaarloo koo xam ne moo la suutab lees nga kaa diir mbagg. moom et malheureusement génération bi jamono bi dañu am problème boobu gis koo xam ne day gën ci télé bi tay tay tay bëgg a jaay mbagg koo xam ne yàgg na ci télé bi. donc lu doy waar la. faw ñu parce que seen jamono da ngeen doon cheminer. ah oui daal daanoo woo leen dem vite en besogne da ngeen di def nank dans bourlingué kii alors que léegi c'est très ah. c'est plus facile maintenant ah nga créer sa chaîne YouTube c'est facile mais bon il faut nga am aussi la tête sur les épaules xam ne da ngay jàng mettre te mettre dans la position de l'apprenant c'est capital mm-hmm. mais mais mais chance bi bi ñu amoon bon tey tey nag chance beneen chance bi dafa dem beneen chance moo di la technologie dafa avancer ba nga xam ni il suffit d'un peu nga génn ci mais pourvu que nga am talent bi pourvu que nga nangu ñu encadrer la mais tëb rek nekk ci nii. mooy waral dérive yu bare. mais la chance qu'on avait dafa am lépp lu nit di def ci àdduna. mu am contrainte. c'est bien. mais lu nit di def te amul kenn ku kaa wax waaw wala déet wala kii mu kaa def rek ci ni mu ko neexee. du du am valeur. da nga dem ba mbëkk miir bi. bu sonn mbëkk miir bi taxaw après am nag am ñu ñëw daal ne médecin après la mort way boo defoon lii fekk trop tard. Mhm. je dis une quand tu me poses la question à savoir lan moo doon sama rôle à Jololi euh, alors parce que dama dama dama xaw a sob je combinais l'écriture donc au niveau de la presse écrite et les activités culturelles donc j'avais par exemple au Populaire le des cultures et ci des culture ça ne m'empêchait pas d'écrire en politique ça ne m'empêchait pas d'écrire sur la page 2 je me rappelle page 2 off Populaire autant ça marchait ñun ñi ñoo si doon nekk. ñoo ko page off yi. page off bi nga xam ne tey moom la L'Obs di def moom la ñeneen mais page off euh, témoin moo ko njëkk a def c'était les bulles de témoin à partir de témoin témoin vendait son journal à 200 ou 300 hebdomadaires quand Thierno Talla est venu au Populaire il a proposé le journal. ci olof ah seen internet yi nee na na nga wax olof. ah man man nañ ma baal. xam nga ñun nag je vais prendre après quelques questions internet daal di ci profiter ci ku ci am ay questions. ngeen demander. nañ ma baal nañ ma ñu ñu ñu ñu laaj ko rek mais lépp nag ci teggin. nañ ma nañ ma nañ question yoo xam ne question pertinente. i nañ ma baal nañ ma baal nañ ma billaay baal leen ma. <laughs> billaay tàmm baaxul baal leen ma de ak man ni ma weddee tubaab yi. baal leen ma ñun ñëpp koy def. baal leen ma alors kon nag ma wax si ma kàllaama. dama doon bind populaire maa ngay fàttaliku. Euh, ci yenn papier yoo xam ne jot na ma marqué benn entretien bu mag bu ma defoon ak Aïssata Tall Sall en 2000 euh, ak Talla Sylla taala ndeysaan laata muy am jafe-jafem bi ak euh, mooy bi ñu koy attaqué. Mhm. ñaari entretien yooyu bokkoon na ci ma gën a marqué bu Aïssata Tall Sall bi lu tax mu marqué woon ma dafa tombe woon jamono bi Abdou fu nekkee fii mu moom Aïssata mu amoon jafe-jafe ak sunu baay bi benn Bass Diagne ci wàllu antenne MMDS yi donc ci waroo boobu ci la ak jële woon ñu waxtaan ci mu nekkoon lu mag loo xam ni euh, après jur na sunu wëllëre parce que. laataa loolu dañu dañu dañu nekkoon wóllëre par ses sœurs. Mhm. parce que yaay Faati Abse di rakkam ak Ramatulaay sama ay xarit lañu Ramatulaay ñoo bokkoon comme set euh, yaay fàtte ñoo bokkoon classe mu nekkoon sama xarit trop donc ay rakkam lañu donc voilà loolu lié woon et ba tey ba sànq Aïssata alama yaay bopp alama xarit alama avocate d'accord quand bien quand bien <laughs> même que quand bien même que sur le plan politique dañu merente d'accord alors Pa ah, Assane at yi di dem hmm. Euh, Pape Assane quitté carrément le monde de l'audiovisuel du ma ne monde audiovisuel sax mais dama ne li nga xam ne mooy programmation mhm. euh, tout ce qui est événement culturel wala les émissions et tout dugg carrément ci mbirum chronique mhm. lan moo nekk l'élément déclencheur da nga toog gis je sais pas nit ñi di mhm. traiter information avec tendance boo xamante da nga gis ni dañuy sappe li nga xamante ne mooy dëgg bi wala da nga gis ne mais il est temps vraiment ak at yu ma def ci milieu bi yëpp que je dan moo nekk l'élément déclencheur nga nekk chroniqueur. waaw xam nga xam nga boo nekkee di bind dans la écrite parce que journaliste force dëgg c'est l'écriture dinaa la wax tey lu tax Walfadjri Walfadjri bu njëkk bi mu fi nekkee ak Sidi la Sidi sunu baay bi yàlla na ko yàlla yërëm. amiin euh, yokk ay leeram ci aljana yi gën a koy bi mu fi nekkee amoon na doole. Mhm. loolu sax. Mhm. nekk la première station. dem ba benn jamono jamono mu am lu mu ci perte. Mhm. mu ñëwaat amaat doole il faut se poser la question. Mm-hmm. ñi nekk ci télé Walfadjri tey je vais prendre le cas de Moustapha Diop Moustapha il est venu nous retrouver à comme c'est au Populaire. Mm-hmm. mais le sens de l'écriture qu'il avait moo def Moustapha Diop bi tey. c'est vrai qu'à l'école ñu doon euh, man je me rappelle à l'école bu ñu doon dem defi defi stage ou euh, kii de ça ñu doon. demandé, commencez par la presse écrite. Moi, moi soubassement aux journalistes. Ouais. Si tu pa peux pas rédiger un papier, pour être un bon journaliste, il déjà fait. Serigne Salou Samb yal na ko yàlla yërëm. amiin ndeysaan c'est mon professeur. ndeysaan dama ne il faut commencer par la presse écrite. doo ko mos a rëccu. c'était c'était mon grand ami. waaw yal na ko yàlla yërëm. amiin et je me rappelle. ndeysaan taal bi sëñ Sa sëñ Touba bu mag a mag. wallaay je me rappelle Baye Sall sëñ Salou. dernière émission La dernière fois, juste avant son décès, la dernière fois que je l'ai reçu, c'était à Excaf Telecom. On a fait une émission, quelques temps après, il est parti. Ouais,